leen baalu di ñaan sama borom yi boroomu njégal mu boole ñu jégal ñun ñëpp ci yërmande nañu dox nii tuuti moom di leen siyaare nag ci bis bu tedd bii nga xam ne amuñu lu dul moom ki ko waral amuñu kenn ku dul moom te bëgguñoo am kenn ku dul moom itam ni ngeen ko xamee rek ba mu ñu suñu borom dimbalee ca booba ñu nekk ak moom ba léegi fu ñu nekk ñoo koy bokk nekk léegi nag waxtu fi mu toll dama xam ne tàng na te tàng na ci ñëpp tàng na ci xale yu ndaw yi tàng na ci jigéen ñi aussi comme guddi gi mooy ëpp jot ma bëgg bu guddee ñu daje fi ñun ñëpp sant ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waaye dollee santati ak delloo njukkal bu wér Seydina Ousmane Mbacké Noreyni la ndax li fi nekk lépp lépp lépp bu ñu jotee ci Serigne Touba moom la bu ñu jotee ci Thierno moom la suñu lépp Noreyni suñu lépp Seydouna Ousmane kon nag ni ñuy def mooy kenn ku nekk dangay góor góorlu sa kenn kattan fexe ba ku la jege nga bëggal ko te bañ koo mer la bu kenn wax wala nga def luy déranger kenn. di jégalu nag am nag ay quelques désagréments ci ñenn ñi waaye nag ñu comprendre ma rek je compte sur vous et j'ai beaucoup compté sur vous vous êtes ma protection vous me protégez vous m'avez toujours protégé c'est pour cela mbir yi mbir yi bi ngeen di dugg si Sukoor yi gis ngeen ni mu demee maa ngi koy jégalu bu wér a wér maa ngi koy jégalu bu wér parce que dafa am lu ko waral li ko waral mooy dañ dee ay góor di doomi góor bàyyi suñuy mbokk bàyyi suñuy wayjur bàyyi suñuy xarit bàyyi suñuy àndandoo jóg dëgmal Sukoor yi ñëpp teg ñu bët ñu xool ñëpp ubbi seeni nopp duñu déglu kon kenn ku ci nekk ci ñun li fiy sécuriser li fiy sécurité li fiy indi jàmm ci yow la war a njëkk a la ma leen daan wax ndakaaru ci cant yi rek fu ma nekk loolu lay dund te loolu moo nekk ci ma bëgguma benn yoon ñu daje suñu daje ñu jóge fan daje woon tase kenn mu duñu mere mbaa mu duñu jéppi damay bëgg saa bu ñu dajee kenn ku nekk jariñoo fa njariñ loo xamante ni bi daf lay jariñ adduna ak àllaaxira moo tax incidence yenn yi nga xamante ni bi ak sukóori bi ngeen di dugg si gis ngeen changement buy fi am yooyu yëpp ñunu nen la ñunu nen la ñi ciy jàpp di ko def ay góor yàlla lañu ay taalibe laxasaay lañu ay ndongoy laxasaay lañu Serigne Touba rek la ñu yaakaar Serigne Touba rek la ñu gëm dañoo jaayante nag ñëw taxaw ci lépp loo xamante ne bi nar nañoo indil désordre ñu taxaw ca loola ba suñu borom dimb lañu ca loola ne ñii seetaan image yi bu ñu gisee takkuma masque bu ma ko takkee daf may étouffé moo tax mënuma ko takk yéen ñëpp yéen a seeni masque ah attention <laughs> masque yi ñu ah ma xool ba xam ne ndax yor ngeen ci góobee danañ ko borom daaru rek lañu xam yow borom daaru ñëpp màggal maam Cerno Ibrahima Faati ñëpp màggal maam Cerno lépp ci góobee danañ ko borom daaru rek lañu xam. borom daaru waaw waaw. lépp luñ ci góobe danañ ko gar. borom daaru xam yow. borom daaru daaba. yaa boobu njabooti. ragal borom daaru rek lañu dund yow. borom jërëjëf Seydina Ousmane kon na kon situation bi bu ñu ko xasee comprendre noonu situation bi bu ñu ko xasee comprendre noonu bu ñu fi jógee fa ngeen di dem di toog di noppalu bu leen ko permetre seen bopp di ko permettre rek keneen. on va continuer à veiller sur notre propre sécurité ñi am yeneen intention ay doomu aadama lañ ni ñun bu leen seytaanee nattoo ba ñu am beneen intention bu bokkut ak ba sama borom dogal ñun nañu kontante wu ci li nga xamante ni moom la sama boroom dogal nañu góor góorgóorlu bu baax adduna adduna kenn ku ci nekk ci ñun waxtu woo dund rek wàññeeku na ci say waxtu bis boo dund rek wàññeeku na ci say bis semaine boo dund wàññeeku na ci say at at moo dund wàññeeku na ci say at kon waxtu wu ne nañu góorgóorlu suñu kem kattan ci loo xamante ni bi bu ñu ko jëfee mbaa ñu wax ko sama boroom gërëm ko nañu moytandiku loo xamante ni bu ñu ko waxee du dëppoog loo xamante ni bi suñu borom lu mu gërëm lay doon kooko doomu aadama bi jàmm bi fitna rek la lay indi waaye du la jural jàmm nañu bëggante nañu soppante nañu wóolante man nag ku bëgg a ànd ak man liggéeyu Serigne Ousmane bii te amoo yërmande amoo sutura amoo worma amoo teggiin danga am problème parce que damay doxee ay une vitesse de ci mais plus vif que Leclerc. mais fit ak jom ak ngor la ñuy doxee amuñu lu ñuy ragal ndax Seydina Ousmane lañ yaakaar moom lañ teg suñu kanam moom la ñuy xool sama yoon newul ci leneen sama yoon newul ci leneen. Sikori gii ngeen ma fekk. di fi ñëw di ma fi fekk si di ma wéttali nooree ni mi ma yaakaar xam na ni bu ma demoon ba kenn nangatu ma fee fekk tamit ma toog fi wéttali ko sama borom ak Seydouna Ousmane ndax xam ne fu ma nekk du ma ko loolu génnul fi mu ne nii génnut seen jëmm yii yéen a tax fit wu ma amoon dafa triplé parce que saa bu ma gestoo gis leen ku fi ñëw bu Sikori ku xamoon Sikori démb ñëwaat fi tey